déclaration bi nga xamante ne moom la sëñ Bass def ci li xew Touba ñaawlu ko parce que ñëpp dañ doon laaj euh, kilifa diine nañ intervenir nañ wax mais gën nañu wax ci li nga xamante ne moo xew Touba xew moo xew Mbàkke euh, lu ko ba pare dal ci kaw politique yi ne li li ñu bëgg loolu loolu dañ leen ko aaye définitivement Mbàkke gis nga maas mhm. mbir boo bëggee ma ne mbir boo bëggee. Mm. mu leer ñi nga xam ne yépp dañu cee bokk ku ciy waa bokk di wax dangay wax ci xam-xam di wax ci dëgg. Mm-hmm. waaw wax ci xam-xam ak wax ci dëgg. Mm-hmm. Ousmane Sonko ñetti at yi yépp walla ñaari at yi fu mu génn ne day dem ñu boole ko ak une division blindée. Mm-hmm. dëgg la wul dëgg. fu mu jóg di dem bu ne damay dem quartier sangam ñu boole koog indivision division blindée. Mhm. bu may def nemmeeku tour ñu boole koog une division blindée fu mu dem les forces de l'ordre topp ko. Mhm. d'abord loolu lan moo ko waral Ousmane Sonko def na meeting géejawaay ba mu ko defee ñoom ñëpp ils sont affolés parce que xam nañ ne la majorité des Sénégalais. Mhm. sont avec Ousmane Sonko. Kër Massar Kër Massar bi mu ko fa defee les majorités sénégalais son avec. Ousmane Sonko. bis booba sax bañ demee Kër masaar ca yoon wa ñama àndaloon nga xam ne ñoo def meeting wu bi dañ na ne Touba dañ fa xaw ma Mbàkke dañu fay def meeting. biñ fiy def meeting ñu xam ne bu ñu bàyyee meeting booba dana toll ne wala mu ëpp bu Kër Massar ba ñu tiit. ndax bërki démb dañ leen a battre aux dernières élections ils ont battu été écrasé entre Touba ak Mbàkke. loolu gën leen tiital ñu bañ ñaari meeting yooyu désarçonné leen ba ñoom. dégg nga duutuñ amati moral Ousmane Sonko jël nañ affaire Casamance bi tegal ko ndëgg ndëgg sërëx mu échoué jël nañ affaire force euh, occulte yooyu tegal ko ndëgg sërëx mu échoué mais nag bu ci nekk rey nañ ay gaayam gaañ nañ leen jàpp nañ leen pour décourager lan ñu indeeti récemment problème mu Adji Sarr tegal ko ko muy ndëgg sërëx goo xam ne gi ku ne xam ne ne c'est fabriqué et cousu de fil blanc dara du ci dëgg mu échoué. léegi nag lan lañ bëgg bëgg a boole Ousmane Sonko ak sëriñ si nee nañ Ousmane Sonko salafiste la Ousmane Sonko wahhabite la usmaan Sonko def ba mu bu demee tuubaa na muy sukke moo gën a rafet ni waa jii di sukke ak man mii ni muy sukke waa tuubaa sëriñ sépp di ko alawti ko di ko laaj naan na ñëw nuy si na ma seet na ma seet Ousmane Sonko buy dem Touba am na sëriñ soo xam ne si bu demee Touba du leen nuyu amut ak ñoom affaire pour deux raisons parce que xam ne ni sëriñ boobu nam koy teeroo gënalu ko. ah bon kon Sonko am na fu muy dem di. Touba ak ñu fa mu xam nañ la fa ne. j'ai plus de soixante dix ans Touba laa nekk ba ju ba toll nii dara wum fu ma kolobaan gi ma sama baay mbay gumba la dadaa woote toolu sëriñ Baara xaw ma sëriñ Abdou Aziz Baara. Mm-hmm. donc murit gi moom kenn duma ko jaay kenn duma ko jàngal dama ci juddoo ba tool nii te tey li nga wax laa bëgg nga leeral Ousmane Sonko bu demee Touba am na kër yu muy dugg ak yu mu dul am na ñoo xam ne ñii bu leen di nuyu bëgguñu mu ñëw seet si leen te du leen seet si mhm. ndax ñooñu bëgguñ Ousmane ñëw yi sawaru sawarute ñëw foofa mhm. ba am na problème yi mu indi woon temps yële léegi nag problème mu Touba Ousmane ne day meeting mhm. demande de meeting lay def ña nekk Touba nga xam ne ay benn Bokk Yaakaar la ñu def wala APR mais ils avaient introduit une demande ne ñoom it au même jour que Ousmane dañuy meeting à la même place c'est-à-dire bëgg préfet tere ñaari meeting yëpp est que loolu am na wala amul xam nga ñëw ñu ngi indi histoire ñooñee nag bi Ousmane ne day meeting ñëw Touba ajuma le meeting c'est à quinze heures mm-hmm. il est à Touba peut-être vers midi et consort mu ne day dem ca jumaa ji julli ji Ousmane c'est c'était pas la première fois mu dem Touba. Mm-hmm. mu dem Touba julli ci jumaa ji euh, kii comment il s'appelle euh, l'association bi géré kii bi sëti sëñ Touba yi géré Safiatul Aman mm-hmm. ñoo ko recevoir mu def ak ñoom ab contrat mm-hmm. ñu ne ko léegi booy dugg ki yor sa féetul amaan moo wax ma dëgg dëgg te kooku il est mieux placé que quiconque pour xam li muy def mhm. Ousmane bi muy ñëw ñetti nit lañ ko may ñeent lañ ko mayoon pour dugg ci jumaa ji mu a ñett doy na bi mu duggee ñu ne ko toogal fii mu toog foofa ak ñettam bi mu jullee ba noppi sëñ bi jóg bëgg di dem di siyaare xaadimu rasul mhm. mu bëgg cee topp ñu ne ko lii bokku ci toogal Ousmane toog ba sëñ bi siyaare ba noppi ba génn mu dem siyaare mhm. bàyyi sëriñ bi ba sëriñ bi génn mbooloom dem ca jumaa génn ñibbi ba yëg këram yëg këram mhm. Ousmane soog a génn entre temps peut-être am na ñu fa daje ña fa daje yépp amu ci kenn koo xam ne kii da koo Tuubaa ak Mbàkke ay murit saalix ñoo fa daje ñooñu ku leen gën a respecté ormay Touba. Mhm. ña fa daje ay murit saadix la kenn gënu leen a bëgg Touba kenn gënu leen. léegi kàddu kàddu sëñ Bass Abdou Khadre noo ko noo ko jàngatee. Ousmane Ousmane bi muy dem. Mhm. ñu ne ko doo jaar fii jaaral nii ay échauffourées xañ na am na te ma nga am ca station essence ba nga xam ne mooy limite Touba ak Mbacké. Mhm. foofu lépp xewe Auchan bii ñuy wax ñaan dañ ko dara néew ci woon Auchan bi Auchan bi pertoon na ba kii kii xam ne ne Touba kenn ëpp ma fay mbokk. naar yi daal maa ngi koy quatre-vingt pour cent yaa ngi Touba te dama doon téléphoné nekk ak ñoom en direct ci meeting bi. Mhm. préfet bi bi ñu ko joxee papier bi moom xam na ne ku ni dégg na Saliou Saliou kii bi nekk euh, Sen TV. Mhm. gis nga ni mu tojee décret bi ak loi yi ko jiitu. Mhm. préfet bi li mu def dara lu ci dëgg c'est des préfets politique qu'ils ont mis là-bas des préfets la la paire. ñu naan autorité de l'État autorité ana autorité la si l'État et a une position. médiane impartiale ñëpp respecter état mais mm-hmm. état bu fekkee dafay nekk pour un groupe de personnes ou pour un individu kenn du ko respecter loolu mooy problème mm-hmm. bi affaire bi amee ñu ne dañuy miti ñooy da ngeen meeting ñu sànni ay grenade ku ñu jël ci di wax Sénégal kenn ñun ñëpp xamante ni képp ku fi wax xam nañ li tax nga wax képp ku fi wax xam nañ li tax nga wax mm-hmm. ku mu neex nga nag na nga wax jóg wax li nga wax mais ça ne veut pas dire que da nga wax nit ñi bëgg cee topp man Touba buñ ko doon défendre dégg nga ñu attaquer de l'extérieur sama bakkan laay jaay te duma ma gone. Mm-hmm. ñun ñëpp ñoo war a défendre Touba la défense de Touba ce n'est l'apanage de personne ñëpp ko war a défendre. bi ñuy tax tabax jumaa ji. Mm-hmm. sëñ lu nekk fi daa sase man sama baay daraa indi aw sasam ñu tabax ci jumaa ji man ñi tabax jumaa ji sama al dem na sama ñaqu baay sama ñaqu maam dem na ok donc kenn ëppalewuma comme ñaqu ñu bëri waaw léegi dama bëgg ci question bi ma la posé mooy ci kàddu yi nga xamante ne moom la sëñ Bass Abdou Khadre yëkkati jëmale ko jag ci politiciens yi yàlla fa amoon gis nga bu koy wax mhm. na ko wax mbàkke mbàkke ya nekk Touba nekk ay député ak i maire di politique na leen ko wax soog koo jëlee jëbali ci Sonko député bi njëkk sant Mbàkke sëñ Fallou ko fa tegoon. maa ngi koy fàttali déglul mais yow. eh sëñ Bass Abdou Sonko doyen. déglul dane politique Sonko la ñuy tudd ñoom ñëpp Sonko parce que dañu am na ci ñoo xam ne dañoo am mission détruire Sonko. Mhm. am mission dégg nga boole Sonko ak sëriñ si loolu laa la bëgg a xamal. Mhm. dégg nga am na ñoo xam ne dañoo am mission boole Sonko ak sëriñ si. moo tax saa bu ñu waxee seen wax da nga koy dégg analyser ko. Mhm. Sénégal ku fi politique amut. ku fi politique amul amul mbàkkee mbàkkee yu nekk Touba nekkoon ay député ñooñu du ñuy politicien ñooñu ñu nga ca gannaaw di xam xambu. li ma jaaxal kàddu yi dans Benno Bokk Yaakaar wax nga ko jagleel ko Sonko man moo ma jaaxal. ma ko Sonko na na wax ñëpp kii moo ko jagleel Sonko moom lay dindi. na wax buy wax dañu wax ñëpp waruñoo wax Sonko Sonko deful dara Touba Touba lu fa xew am na fa ay mbàkke mbàkke ak sëriñ soo xam ne si bien avant la ba Sonko daata juddu ñu ngi nekk ci parti politique yi am na ñoo nekk bennoo am na ñoo xam ne sax dégg na bennoo kër gi Baye Fall yi tabaxal sëñ bi. daal hmm. boobu foofu lañuy rew réew le siège de Benno est à Touba. Hmm. Sonko nekkul Touba. léegi wax ji bu ñu koy wax nañ ko ñeme wax ki ko ñemee wax ku ko ñemee wute wax Macky nga bàyyi te ñaari nit fu ñuy xeexee ki ëpp doole ngay téye histoire bi amoon l'année dernière sëñ Mountakha bi mu defee délégation yable fii. Mhm. ne Sonko ñoom bàyyi leen envoyé doomam Serigne Bass Porokhane defe naa la moom la envoyé mu woo gars yi mais gars yi dañoo bàyyi. Mhm. ku gën a respecté Serigne Mountakha mooy waa Yewwi Askan Wi. ba mu leen nee bàyyil te booba jekkoon nañ Macky Sall ba Macky Sall dégg naa temps boobu camp militaire lañ ko doon fanaanam ñoom ñi ñëpp dañoo dawoon <laughs> dañoo dawoon <laughs> jërëjëf léegi ñu naan sonko sonko sonko nañu bàyyi sonko gis nga vague bii mhm. mënu koo arrêté ah bon la militaire munu koo arrêté militant mhm. benno bokk yaakaar minu mënu koo arrêté mhm. parce que lii nga gis nii c'est les Sénégalais dans leur immense majorité ñoo yeewu ne dañuy dagg buumi askan wi suñ digganteek France raccord yeeg coopération bi dañ koy seetaat jaarale yëf yi ci yoon am na ñoo xam ne defe nañ bu yëf yi jaaree yoon duutiñ ci gis seen bopp moo tax nga jóg leen fu ne ñuy coow kon daal attends déglu kon daal li nga wax mooy réew lii daal sëriñ mënu ci dara sëriñ bu ci mën dara c'est une révolution populaire li nga wax aussi parce que li nga wax ba pare dellu si ñu ne na kilifa diine yi wax nga ne sëriñ muñu dara. mais kilifa diine yi nangu ñoo wax dama la bëgg a wax leen kilifa diine yi ku ci dem wax ak Macky Sall it bu la nee waaw du ko def loolu tax kilifa diine yu bari mënatuñoo okay. wax jërëjëf te déglu ma wax la leen mm-hmm. dañ naan kilifa diine yi waa Pastef fa leen di saaga gis nga ñiy saaga kilifa diine yi ñu ci bari mm-hmm. ils sont pas à l'intérieur du pays te ñoom ñii fa ñuy saaga xam nga fan la nekk mm-hmm. dama julli ajjuma jàkkay Paul Hall ji jumaay Paul Hall ba noppi benn ku kii nuyu wax ma turam ma ne ko mais yow on est correspondant dans le Facebook. mu ne ma ñun ñun ñoo yor euh, teg force Macky Sall bis bi bi bi tontu tax force barke sëñ Touba ñoo koy yor di tontu xam nga fu ñu ne. Mhm. ña nga wetu poolool si gannaaw foofu. Mhm. foofu la ñu ne mu ne ma fii la suñ bureau ne wan ma ko ma ànd ak moom dem café de Rome añ. gis nga lii ñuy wax les barbouzes dont on parle là <laughs> sont derrière la présidence barbouzes yu nga xam ni parce que barbouzes yooyu mën nga leen recruter fu ñu mel noonu la Gbagbo recruter woon jëlee leen Libéria. c'est ce qu'on appelle des chiens de guerre moo nekk fii ak bu ñuy manifester ñoom la ñuy indi ñu ñuy fetal ak